jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci arène nationale ki ñu fi woo nag di Vox Arena nekk site internet boo xamante ni vraiment li wolof naan ku yokkul yaa wàññi waaye ñoom dañoo yokk bi ñu dugg see ci làmb ba léegi ñu ngi def ay jéego yu am solo tey ñu organiser bis bu mag affiche bi nag doon ci diggante Tyson 2 gën ak ndaayaan bi doomu Pikine bi moom mi nga xamante ni moo nekk ci écritage si nga bu jugee ànd ak Eumeu Sène ànd ak waa Pikine ànd ak waa Ndayane ñu ñëw dooleel ko muy bëre xale bi nga xamante ni daanaka bi mu duggee ci làmb yàggul waaye def na ay preuve am ci làmb muy Franc Franc na ku ko wax wax écrit parcelle mbooloo bi nga xamante ni fa la bàyyee ko wax parcelle gi topp ci ginnaawam yëpp ndax tey bu ñu nee roi de arènes ma nga parcelle doomi parcelle jugee parcelle ñëw di bëre combat bi tey dina nekk combat boo xamante ni combat bu neex la mais en tout cas Franc dugg si na moment bi may wax ak yow nii tuuti bi mu dugg see ba tey mu ngi ci ay débat débam mu ngi ci ay xarfa xuufam waaye ba léegi Tyson 2 dugg seegul grand combat bi doxoon ci diggante Mama Lamine ak Garga 2 ñëpp doon ko xaar ndog-ndog nag du wees ñuy masawu Mama Lamine ci loolu nga xamante ne dal na ko di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom saafara blessure boobu mu am ba mu dellu siwaat ci ay activité am ba làmb namm nañu ko diggante moom cin la buy baax du am ruq bu sedd kaay aadama ñu dugg yëngu yëngal xool gars yi xool amateur yi xool amateur làmb yi xool supporter yi xool gars yi nan la dugg see kaay yi waaw waaw. combat. waaw Rock Énergie laa nekk. waaw. avion. billaay walaay. lan lay jox nga ne. ah. kan nga euh, xam nañ nañ ma jox. instant yii nii xamaguma gars yi yëpp. dara. nee naa ko man liggéey. naa la ko woon nag combat maa lay jàngal bëre. gis nga tey woon naa ko xaar leen deuxième combat léegi maa ngi gërëm ñëpp père supporters yi combat bi dafa xat moo tax sa gaay mooy loolu ñu waroon ñëw ñëwul waaw di gërëm sama yaay ñaanal na ma bu baax bi may ñëw samay mag di di gërëm gaay yëpp dem mbanguy ziar naa leen simal sin bas sin basiru Sarr ziar naa ko bu baax a baax waaw père Sarr simal ziar naa leen bu baax di jàpp ci combat bi yëpp merci père ndeysaan Franc yëkkati ko tibb na suuf moom mbër mi am ndam ndeysaan jox na franc làmb gi ndeysaan ñëpp am accréditation ba mu des man naa daa mujjee jël boppam dégg nga ma ne kii sama doom la woon kaay kaay ñu topp Ibo bu kër Mbay Fall xool ñi mu indi gis nga xale la boo xamante ne bàyyi leen ko xel ci làmb Ibo ngi nii ñii la àndal moo kër Mbay barki Sëñ Tuubaa yaa xam ma waa kër Mbay Fall waa Ñoojoor war na Sëriñ Tuubaa jëli baa jili waa kër Mbay Fall ak waa Ñoojoor la lan lañ lay sama yaram mooy lool noonu bëgg Sëñ Tuubaa Mbàkke mel ne rek laa leen mën a fay muy muy te ci kàttanu yàlla dama koy am maa la wax loolu bàyyi jili booy ni duñ ma yàqal sama yoon nee naa leen ren la àdduna yëpp di xam ne Kër Mbaye Fall ci làmb kon doomu ñoo yor laa bàyyi war sëñ bi wax waa ñoo yor ne sama ginnaaw waa Kër Mbaye Fall ne sama ginnaaw taxawaa loolu woo waa Kër Mbaye Fall bàyyi war na sëñ Touba Kër Mbaye Fall a ngi nii ndeysaan xale yaa ngi noonu ñooy ànd moom Ibo journée bi mujj ñu jël Aïcha eh Ibo Ibo la eh waaw lan lii baa ji nii li dara fay ko mooy sëñ Touba. dafa garaaw bilaahi dafa neex. yaram sax rek bilaahi walaay war na sëñ Touba. loola dem ndeysaan Ibo la góor ak kër Mbaye Fall gi xale. Ndeye Diop liggéey waaw calme rek au oh, calme rek lépp dañ ko jël au oh, calme waaw xam ne grand moo ñu yónni yàqam di ñu ko ah voilà. tey bisu Grand Yoff doomu Grand Yoff di ci bëre tey nga ñëw ak moment bi nga xamante ne ci la Grand Yoff jugee lan moo la mën a may ndam ak ci lan la la làmb ji jaral tey. waaw mooy ma la wax a Grand Yoff moo soxla ko ah ah amoo waxu ju bëri ba ci kanam. voilà mais a moral est bon. waa nice. toujours bon toujours bon sëñ Fall. frère Ndady ziar naa. doon naa la ziar sànq. ah yaa baax. keroog bi ngay bëre fii arène nationale mujjee ñàkk mais làmb noonu la jafe-jafe yeeg xat-xat yeeg yëpp xam nga li la koy may parce que doon gan ci làmb Ndady nan nga mën a defaat ba siwaat ci làmb. waaw yàlla moo ñu doon may ñoom moo ñu xañ du jafe-jafe sax ndogalu suñu borom la ni day nangu yàlla ndaw ñu ma doon daan gënuma leen ana ñoom maama yaa dama leen daan ñu nekkoon si ay jafe-jafe tey man foofu laay xoolee dellusiwaat kenn xañu ma yàlla moom ma xañ daam seen maa ngi koy encouragé di ñaan di jégalu samay supporter bu baax képp ku ma supporter maa lay jégalu bu baax di tudd di jégalu xam nañ lu ñu war ñu ngi koy dinañ liggéeyaat balaa ñu ñëwaat suñ ñëwaatee dañu xam ne Ndande Fall ñëwaat na loolu laa amoon lu may wax. keroog bi nga bëree ba pare xam naa ne tàngoor yaram bi moo la jàpp rek nga bëree daanu ne bàyyi nga bëree mais loolu dafa mel ni bi nga koy wax du yow yaa taxoon nga. non man bu doon man ak man bàyyi naa bëre waa nit am nga loo moom am sa genn wàll moom samay genn wàll ñoo ne ma boo bàyyee bëre ma dog ak yow comme nag loolu bu bis am ma dellu si loolu dong la boo man ak man ma bàyyiwaan ñu may jàppale te yàlla tax di yëkkati seen xaalis di def si man ci amee ma soo bàyyee ma dog ak yow comme nag loolu man moo ma. sa place ci làmb di nga ci jot. incha allah. ndaayaan gaa ngi noonu. ndeysaan moo jugee Tay Shinger. Tyson tey bis bi lu non tey rek ñu ñëw comme ni ñu daan ñëwee rek. waaw lan la laaj tey lan la laaj. rek tey ñu ñëw comme ni ñu daan ñëwee. mais la morale bon. waaye pare naa. ci lépp. bi nga duggee gis sa adversaire lan nga yëg. non loolu garaawul. loolu mag moom la. incha allah da ngay xeexam moom wala da ngay bëre. lu mu laaj rek. Tyson 2 Barsar ndox mi lan la. jàmm rek. jàmm ci kan. jàmm si Tyson 2. jàmm ci Franc. waaw waaw yàlla ko yàlla may jàmm. mais bu sëggee ci digg géew bi est-ce que jàmm jooju di ko may. non man damaa am foofu quatre victoire. kon fa daan. man damaa dugg sa arena tour ba. daan fa Mandela parcelle. ñu ngemb Goro Sock ma daan ko. ñu ngemb euh, Garga ma daan ko. tey ñu indi ko. favoriser ko. dama koy nangu. dama koy nangu nag. mu ngi nii dama ànd ak moom kii mooy relais bu Eumeu Sène waaw Eumeu Sène bu demee kii mooy tête de file bi kon tey dañ Pikine yëpp a génn waaw yàlla baax na. kaay jëlal. day indi moom Adama Franc ngi moom Franc ñëw na ci supporteru Tyson 2 yi nee na leen dégguma leen na dàq ko Franc ñëw na ñëw na ci supporteru Tyson 2 yi na boo yaa ngay sànni ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan <laughs> waay kaay leen lamb yëngu na fa mu waroon taxaw taxaw fa dem na déggal paa yi ndeysaan Franc ngi noonu ayca ñu may leen tuuti bàyyi ba ñoom si ñor su ko defee ñu ñëw ci lamb ji ngeen xam ne lamb rek ay lamb eh yàlla bu baax mais sa rakk di bëre nga indi ko ban yëg-yëg ngay am ci. métti na quoi mais booy bi jàmbar la. waaw pression bi day na ci man bu baax par rapport man nu may bëri du ma am pression. mais du bëri rek damay jéem a tuuti rek waaw ah, mais saa bi fa yàlla ko may ma ko ndax bu mu nekk. gis naa cofeel bi mu am ci yow bi nga am moom yéen ñaar seen diggante lan waaw mais koo dafa def ba sa morom rek dana rusante sax maa moom. waaw dañuy rusante moom la rek. yaru na am na cër yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla may ndam di barke Seydina Mohamed. kay nekk gi nekk ci Baye Mandione xadal gi nekk ci moom def nga ko ci moom. yàlla baax na yàlla baax na lépp na baax incha allah te yàlla may ndam rek incha allah. fi muy bëree xam nga ko. non xam nga ko loolu di laa laa xam. xeex wala bëree lan la ko mën bëri na arbitre baa ngi noonu di woo ñaari xale yi dox ci diggante Mandi ak Sakal 2 Sakal 2 boole woon ginnaaw ngemboo ngemb vert li Mandi geen jàkkaar lool ndaysaan ñu ngi noonu Mandi Sakal Mandi ak Sakal 2 ak Mandi ndaysaan ñu ngi noonu arbitre bi sifle na ndaysaan Mandi moo leen féete ndijoor Sakal moo leen féete càmmoñ ñoom ñaare ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu di lewaatoo ndeysaan ñu ngi noonu di lewaatoo ndeysaan ngi noonu jàppante nañ Sakal 2 ak Mandi jàppante nañ ndeysaan jàppante ma ngay door ay uppercut ci suuf faqat wala déet mu yéen Sakal 2 wër na ko buddi na ci suuf kat api daanu daanu na daanu na Mbacke ku daan. Mandi moo daan sàkkal numéro 2. Mandi daan na sàkkal. Mandi daan na daan na sàkkal de waaw mbër. di sant yàlla rek di sant yàlla lu bari. di sant xama yàlla di gërëm di di sant tamit yàlla di julli si yonent di sant Serigne Touba. barke alxuraan maa ngi sant Serigne Touba di sant xolo kilifa diine yëpp di ñaan Sénégal yàlla def fi di nuyu waa Kër Massar autorité yi nekk Kër Massar ñëpp maa ngi leen di sant di sant madame la ministre Sey Diatta madame la ministre de la commerce kooku sama yaay la barke alxuraan combat bi da cee daj lu bëri da cee sonn madame la ministre maa koy sant di sant xolo autorité yi ma jàppale yëpp ay Moussa Ba di ñaan Kër Massar barke Serigne Bamba yàlla na dàq pare Sadio sama patron Sadio mënul nekk sëñ Massar Kër Massar ma mënul dàq pare. Serigne Bamba Kër Massar day dàq pare Sadio sama patron yàlla na am ndam Sadio yàlla na duma Moussa Ndoye bu yéexee sax ma fekk fa Moussa Ndoye di sant tamit waa Kër Massar barke alxuraan. du mën ak ñii du mën ak ñii. papa booy jinne papa booy jinne bu daanee papa booy jinne. ak kan lay bëreel. jinne. ñoom ñooñu noonu. ay eh, Papa Boy Djiné bëriwul Ada Fass. non non Ada ak Papa Boy ku ci daan na ñëw bëreeg man. waaw. doomu Kër Masar la maa ngi sant waa Kër Masar. Papa Boy Djiné. waaw waaw di sant waa Kër Masar. di sant maa ngi sant yàlla. jaajëf jaay doon. mbër. waaw. gaynde xaar nga gis nga de. war nga ndoom ba buddi ba ci kaw dóor ci. noonu la demee nag bëre lañ ma sant suñu ma santul xeex ma xeex wallaahi mun naa xeex de bëre lañ ma sant ma ñëw bëre waaw di gërëm waa ginnaaw raay bu baax a baax suñu waa écurie écurie Sap ak waa écurie Texas ak waa ginnaaw waa yëpp bàyyi ma kenn man ñële laa am. bi ma sama trois combats trois victoire waa di sant bu baax di sant waa ginnaaw waa yëpp bilaay walaay kontaan si yéen rek. koo ma ñibbi ginnaaw raay fa laay fanaan nii. bilaay walaay. Eh! gis nga deret rek deret rek. keroog bi ngay jóge fii dangaa ñàkk. xam nga lan moo la ñàkk loo. waaw xam naa ko bu baax. xam naa ko bu baax a baax a baax. lan la ñàkk waaw li ñu waroon a indi yëpp indi nañ ko li ñu waroon def yëpp def nañ ko mais jaam ak pexeem yàlla dogalam mais li di wax ñëpp dëgg la nag nee ma bu ëllëgee lépp maa ngi koy seetaan nag maa ngi koy seetaan ñu ma bu ëllëgee na nga dagg sa rasa yi lépp yëpp maa ngi siy bàyyi xel nag ba bu ëllëgee bu ma ñu gis leneen bu soobee yàlla. nañ mu jàpp ci sa rasa yi dóor la benn uppercut bu dal est-ce yi du la handicapé ci sa kaw. damay handicapé. na wax danoo jugee woon dëkk ñëw tombé combat bi jige si ndax mënoo tamit di waajal combat dara di juge sa yaram loolu moo taxoon nag ñu bàyyi ko si mais dootuñu dal daal ñu ngi jéggaluwaat supporter bu baax di jéggalu tamit amateur yeeg ñëpp ndax xam ngeen Badou Fall bu bëree mu neex bu feccee mu neex mais Baye Mandione Junior moom waaw moo sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. nijaay sama lépp la. nijaay mooy yaay. waaw gis nga te moom tamit damaa féete foo xamante ni fu ndey ak di féete doom rek moom féete na ma fa te xale bu ndaw la demagul fenn. moo tax lii lépp barki sëñ Fallou tey bu ma ak ngemb yi doon ñaar dama koy ngemboo ñu dugg si biir géew bi ndax yéene ko rek mais yàlla na ko sunu borom may ndam ci combat am bii nii yàlla na ko sunu borom may ndam xol laay waxee sax mais yow taw feex après nañ gën a yaatal. far kay da jaay. loo indi ndam rek incha allah dina yomb lu ñu yàlla may ñu jël xeex wala bëri. lu lu mën di fekk taw rek incha allah. Pierre nee na ñeme woo taxaw samp jaaga jàkkaarloog moom. yaakaar naa léegi at bi sifflé. mais waay bàyyi ma waay. lépp jàmm. gaynde gaynde la. nga ñëw indi bàyyi ma ñoon indi la bii mooy ñaata yoon mu lay indi ci combat. ñoon xam nga rek. tontaw ma ko sax. dëggoo. ndeysaan am na ku daan. ndeysaan nee na ko bàyyil ma jàll. waaw waaw nee na ko bàyyil ma jàll. ndeysaan. jaar na ci suufam. dërët a fort Adama xoolal bàyyi ma ñoon. dërët a fort xoolal bàyyi ma ñoon. gaynde gi mu doon ci làmb tey mu indi rakkam doon muus moom Baye Mandione mu ngi nii esaay gaynde gi mu doonoon da koo réer làmb garaw xola baay ndeysaan ma ngay génne may na géwél bi xaalis ndeysaan xol bi da koo jege ma ngay laal ndeysaan gaynde la moom Baye Mandione volume tuuti moom Ibo arbitre bi sifflé na Ibo ba ngay suul tànk yi Ibo Fage 2 Fage na garde bi ndaysaan di dox ci kaw Ibo wala boog di ko miime ndaysaan Ibo ak Fage 2 ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi Ibo ak Fage Ndaysaan Faga 2 ak Ibo Ibo jiital tànk càmmoñ cokkaas na moom Ibo Faga jiital tànk càmmoñ ñoom ñaar ku ci nekk garde normal nga Ibo ngi demee wet ma ngay demee latéral moom Ibo Ndaysaan ma ngay demee wet Ndaysaan moo daan da Ibo jël na Ibo jël na nañ ma mburu de ci ñaari grand combat am na ku ma ci sarax mburu waagaan sarax mburu de billaay Mbàkke mburu yi de xanaa dama la koy may rek mburu yi moom xam naa sokola ak bër ndaysaan Ibo ba tey mu ngi noonu Ibo dóoraat na benn uppercut ndaysaan faga deux ak Ibo fa 2 ak Ibo ndaysaan Faga wicc na ko Faga wicc ak Ibo ndaysaan ñu ngi noonu Faga ak Ibo combat bi mu ngi bëgg a yàgg nag combat bi mu ngi bëgg a yàgg Ibo ak Faga 2 ndeysaan Ibo ak Faga 2 ndeysaan ñu ngi noonu Ibo ak Faga 2 ndaysaan ña nga ta ñu ngi ci ba ak Faga 2 ndaysaan làmba ngi Eumeu Sène dugg si na sëtu Xoyaan bi Demba Ngom ak Demba jël na ko jël na ko da daan Ibo déet lu mu daan daan na ko Ibo daan na ko Ibo daan na ko Ibo daan na ko kaay Eumeu sama lépp moom la bëggul sax feeñ ci làmb yi bëggu bëggu see feeñ nee na feeñ jotagul bu bu seen jotee dina feeñ moom mii bilaay waa ñoo yor ama seen fay gis nga ñee taxaw yëpp waa ñoo yor. non dellu si tuuti ci combat bi ni nga ko bëree. combat bi maanaam sa waay bëre mag laa bëre moom ama ci defet la jugee man ci victoire laa jugee moo tax ma bëre moom ni ma bëre ak moom nii. te bàyyi la waa gën a dañ ma ne Ibou ngir yàlla yonent bi bul xeeb adversaire. boo xeebu adversaire mën nga daan ku ne ci làmb baa ji li bëreegu ma li ne si bopp ci xam maanaam ci bopp bi ci bëre génnagul. mooy ñaata yoon ñuy jox sa sa adversaire làmb ji mu yàqu ci moom lan moo tax lan moo tax. ki moo nekkoon sixième fois bi bu bañoon muy six person waaw jaama gën laa dugg ñu bañ ñeneen ñi xaw ma leen. tax ma amaanaan damaa jàpp ne seen i mara ñoo baax. ñoom dañuy nangu. bañ ne suba ba maanaam ba fanaan ca lendemain bi ñu delluwaat avance bi. combat bi ki nga doon njëkk a bëreel caatu caatu bu jàmm gën seeni mara ñoo baax baa jëlee ci kattanu yàlla booy duñ ma téye waa Ñoojoor waa Espagne dañ maa yóri nañ maa yàqamte mais bu loolu weesoo baa jëlee waa Espagne non aw ma seen fay maa bëgg nga dugalal ma lii waa Espagne ba Adama dugalal leen ma lii waa Espagne aw ma seen fay xaalis bu bari lañ may kaaru Ñoojoor bi ñoo ko fay waxuma la waa Niodior kese rek waa Espagne bi lu commencé ba fayaa ko 22 ili dañ maa jàppale te dañ maa yaakaar billahi wallahi wal kitaabi ama seen ñu gën a toog bàyyi jili ñëwal dama bëgg nga ñëwaat kër Mbaye Fall ñu toog waxtaan defal ma loolu mais dugalal ma li niveau bu kër Mbaye Fall xale baa ngi na ma la naka bu waaw naas maa ngi nii rek waaw maa ngi nii rek di liggéey eh, di waaj bi yaa ci combat mm-hmm. combat boobu actuellement fan la toll waaw combat boobu de promoteur bi xam nga gars yi duñ mu seet la la jox sa xaalis ba pare di bàyyi mu seet combat boobu ñoo ngi si di préparer di xaar promoteur bi am nan yaakaar mu tëgg ko si août bi incha allah. mois d'août waaye. dina la arrangé. ah mais du ñu def comme te nangu noo libéré ñu dem xool leneen ah nan ñaan nan ka ñaan rek mu jàppale nu am lum nu joxaat nu mën a préparé wu man kaa libéré waaw. sunu digganteeg Valdo. sunu digganteeg Valdo ñun moom am nan nu jox dara ñu bëre. ndax ñu mën a seeti leneen mais du tey tamit ubbil nañ promoteur yi port ñëw booy bu ñu jox dañuy bëre nekkatuñ fii di xaar parce que comme te gars yi nangu noo bëre ñun nangu suñu morom yi ah nan xool booy bu am tur rek. ñooy sa adversaire nga jàpp ni ci làmb actuellement mu ngi am. Modou Anta bu kees. mën mi déggool la jarul. mer la bi jarul muy ñëw Dakar nan ma yóbbu kees ma fekk foofu bëre ak moom Garga Mbossé numéro 1 na ñëw nu bëre. toog bi toog bi amul benn sens maa leen gën a baax palmarès 18 combats laa def 15 victoire 3 défaites kese laa am taay ma daan. Garga Mbossé de indi woon na doomu ndeyam stade Amadou Barry nga daan ko jël bu rëy. ma la wax jamono. barka li li naan waxul dëgg. loolu lu wér peng la man gëm naa ko mais wallaay lazim ñii waruma maa tax sax di leen dama ne la nan ñëw nu bëre maa leen gën a baax wallaay lazim su ma leen laajee lamba fi mu la rek nan ñëw nu toog bi amul sens dañuy perdre rek walaay la ni promoteur bu ma seesee ma bëre. Ah. nekkatuma fii toog di xaar. yee jaajëf jaajëf champion. li mu diwoon nii. waaw Baye Mandione lu muy durool nii. Baye Mandione. ndeysaan. magam la sant borom bi baax. sant ci làmb. waaw suñu waa yi am combat rek tey jeune ku ci mel ni waaw ñu ñëwoon rek wàcc di ko soutenir da mu mel ne adversaire bi muy bëreel xam nga ko muy franc yaag ngeen daje ci lutte traditionnelle bi ban conseil nga koy jox ak nan la mën a entendre combat bi. ba génn lu ñu waxtaanee waxtaane nañ ko ba pare lu ñu war a def lu ci kanam rawu li bët dañ koy appliquer léegi mu jeex. ci xeex wala ci bër. lu mu munti nekk assuré nañ ko. waaw ci xeex ci bëre yëpp. lan mooy avantage ci combat bi li ci kanam raw li bët avantage Tyson 2 ci kanam nga koy gis. ñëpp xam nañ ne Franc mbëru mbapatkat la. ñëpp nee nañ na Tyson 2 moytu li nga xamante ni mooy jàppante bi jàppante bi wóolu nga ci. Franc Franc jàppante jàppante bu muy jàppante Franc kese lay def wet rek lay bëre loolu nag dañ kaa bëre ba pare dañ kaa préparé ba pare làmb ji dañuy ñëw appliqué rek. ci suñu suñu borom ñu ndam nag. ci loo nekk. ah foo toll. waaw maa ngi nii rek di waaj rek. ana avance ah, yi gars yi ñu ngi koy wax de mais adversaire yi ñoo bëri lu ñu ruux quoi. yan adversaire la. ah yan adversaire. ñëw comme Bébé bu ma doon laaj Bébé Balla. ñu jox ko avant ci ñu mu reculer mais xam nga Doudou Sané. waaw boo koy boo koy tegu. waaw xam ko ba pare danga xool li ay sitam ba pare nga doog kaa tegu. fi toll nii kan nga bëgg a bëre. mbay instant moom ah ku ñëw baax na laajuma kenn ku ñëw baax na. ku waaw ku ñëw ñu bëre benn naaw. mais ak yi dinañ nangoo ñëw. jeeta ah? macha allah. <laughs> du problème. na gars yi jël avance mbër lañu. boo boo mbër nga ku ñëw war ngaa mun a jël. dëgg la jarul ku ñëw war ngaa mu jël ah? jël avance gis nga. amul problème. waaw ñu ngi koy xaar bu baax a baax. amul problème. suñu papa la fierté làmb la ñu koy ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam loolu te mu ànd ak wér ba bépp yéene boo xamante ne am na ko ci làmb suñu borom defal ko ci lu kawe njortam en daal lu mën a xew mooy alaaji papa jege ngi noonu di dugg si ndeysaan moom la ñu duppee bis bi tey moom lañ dara jaalee bis bi tey moom papa jeng ndeysaan suñu papa ndeysaan ndeysaan ndeysaan arbitre bi sifflé na ak trompeur ndeysaan arbitre bi sifflé na ñoom ñaari xale yaa ngi noonu dox ci diggante trompeur ak boîte vocale trompeur moom Mbadou daa bëgg a tromper boîte vocale ndeysaan ak boîte vocal ndeysaan ndeysaan trompeur ak boîte vocale ñaari xale yaa ngi noonu. ndeysaan trompeur boîte vocale. ñaari xale yaa ngi noonu. ndeysaan trompeur boîte vocale. jàpp na ko. daw na jëli ko. ndeysaan trompeur jël na boîte vocale. ma ngay dóor ci suuf. ndeysaan boîte vocale jël na ko daan na. boîte vocale daan na trompeur. boîte vocale daan na ko. Eh, boîte vocale mi ku ko woo mi ku ko woo way mbay oh eh, eh, daan naa. kii dafa barke alxuraan billaay walaay du ma ak moom bii mooy sama deuxième combat. waaw billaahi kii du maag moom Mbacké Faye war énergie laa mujjee daan Mbacké Faye war énergie laa mujjee daan du maag ñii billaahi maa ngi ci ginnaaw gaa yëpp Fourrière yàlla ko yàlla may ndam incha allah rabbi ama nuyu naa waaw ñuy bàyyi. tey nga indi sa sa mu war a bëre Tyson 2. Ah. nekk bis bu mag. waaw ah. diggante ak lan ngeen ko yebe. di ko ñaanal rek. bis bi yàlla mën na ko. ñuy ñaan yaa suñu borom ñu bari ñu bari xam nañ ni nga mel ci bëre. mais ñu ci bari nee nañ Tyson 2 avantage am tey mooy xeex. bëre bi mooy avantage Franc yow boo doon di nangu loolu en tant que bëre. ñi wax loolu xamuñu ñi wax loolu xamuñu. Ah. Ah. lan nga la ah yàlla baax na. nu ngeen ko waaj ñu ñaan yàlla ndam rek ndam la. ñu ngi koy ñaan ndam. champion. ñëpp a ngi ñëw ci làmb ji xoolal sëñ Mor day làqatu alaaji Adama teel ma ko foofu ma yéeg teel ma ko ma yéeg si kol yow dinaa la gaañ de. bi <laughs> nuyu naa. yéen a ngi nuyu bu baax a looy wut ci stade bi kay. waaw dama ñëw sens lamb quoi. dama ñëw seeraat. waaw lamb ñeex na quoi. Franc ak kii lamb ñeex na mais première gañ quoi. Ah. waaw incha allah. tey su ma la laajoon fii di nga ñëwee wax. non bàyyi ba toog rek pour quoi. yàgg na. <laughs> comment bu rabbi. bu gaaw maa lay lii. dina am xeex. waaw. dina xeex. door mu daanu mën na ci waaw mën na si am de. bàyyi bàyyi ma tax rek quoi tey supporter laa quoi tey moom supporter laa quoi bàyyi ma tax si yaatu mais première gañ quoi comment bu may nekk incha allah rabi yow sama waay nga. jërëjëf rek incha allah rabi. jaajëf sëñ Mor. waaw waaw. ku ci nekk. mu ngi nekk ci li mu war a nekk. Ndeysaan Baye Balla Bantamba TV Pël Bawol TV. buur géwél xam ngeen ko borom buur géwél TV Dakar Actu buur président maa lay nuyu tey ñu jël bis dara jaalee leen ko ban yëg-yëg nga ci am en tant que reporter boo xamante ne nekk nga ci média bi liggéey ci liggéey bu am solo ba ñëpp reconnaître waa xam nga jili jili balaa ñuy wax dara dañuy fàttaliku suñu ñetti xale yooyu nga xam ne ñu ngi woon leeral tey ma am sentiment de doon ñaan yàlla ñu fekk bés bi waaye lépp sant yàlla tey bés bi li mu mel ñi ko doxal Sine Web la moo tax damay bañ baatu une presse poubelle dama koy bañ nous devons être une presse très responsable parce que nous le pouvons tey ñun ñooy nekk ak mbër yi cinquante deux semaines la ñu nekk ak ñoom ci at mi samedi dimanche open press face to ñun ak ñoom ak promoteur yi kon dem nañ ba nekk une famille kenn mënu dem bàyyi sa doo donc tey bu ñu jëlee bés bi jagleel ñu ko dañoo delloo mbàtt la ca ndaa la waaye di remercier particulièrement toute l' association dama leen wax ni leen man du ma chef du ma président du directeur man seen mbindaan la seen serviteur la parce que yéen a may sant ak di ma digal may def te gëm naa ni à travers cette association mën nañu assainir làmb te mën nañ ko defara tey boo gisee booy ni ñëwee xam nga jiili ñi ñëw làmb samedi dimanche xam nga leen man xam naa leen donc ñu ngi tàllal ñëpp loxo promoteur mbër entraîneur manager bàyyiwuñ kenn nga xam ne ñu ñoo mën a ànd bu ñu àndee bokk ndey bokk baay lamb moo ci gën pël yaa ree di mel ni kuñ dig àjjana lool la baajili maa lay ziar man da xam nga ne ree mooy sama deuxième tour mooy sama ñaareelu tour ah waaw ah, mu solo tuddee noo ko gisee en tant que jigéen reporter xam naa ne yaay seen yaay <laughs> am loolay dëgg. kontaan rek continuer suñu bis la ñun presse en ligne bi yëpp mu nekk lu rafet macha allah loo xam ne àdduna yëpp rafetlu nañ ko ba ci suñu papa Bécaye Mbaye bi nga xam ne moo ñu jiitu ñëpp ndax li dafa nice waa Vox Arena premier journée ñu tuddee ñu dara boobu. xeebuñu de respecté nañ ñu fonk te yéene bi ñu am si ñun yal na leen ko yàlla delloo ñoom it yàlla defal leen jàmm ak xéewal di leen la àdduna nii la nit kenn du ko ñun mënuñoo dem bàyyi leen ñoom mënuñoo ñëw dem bàyyi ñu kenn mënu dem sa morom lii mooy wane ne làmb du tàkkali day boole sport la te yow bàyyi xam nga ne ñun làmb moo ñu tax a jóg te buñ fi defutoon dara buñ fi doon dara te kon duñ ñu tuddee dara waa Vox Arena ñàkkuñu fayda du rek ndeysaan ndeysaan Peul en tant que jigéen tey gis nga lamb ji ni mel nga nekkoon koo xam ne da nga daan wàcc ci terrain bi boo toogee fii lan ngay yëg li <laughs> ma doon yëg rek xam nga euh, baa fonkee yëg la danga koy delloo du dëgg dama doon ñëw di wàcc te su ma toogee fi dama wàññi dara maa ngi ñoo toog yéen yéen a ngi liggéey mel na ni yéen a toog mel na ni ñun ñoo nekk ci terrain bi di liggéey comme li ngay wax ay jigéen jigéen góor baax na jigéen baax na at ba xam nga lan moo fi ne waaw mais at ba xam nga lu fi ne ci looy munti nekk nga demee ci fulla ak fayda ak jom xam sa bopp gëm sa yaay kan ci loo nekk rek day dem tey am naa yaakaar ne ñun boobu ñun ñi ne ku ci nekk gëm nga sa bopp xam li nga doon xam fi nga bëgg a dem xam fi nga bëgg a àgg boole ñaan bi ñëpp nag ñun ñëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm ak taysiir ak sutura yàlla lafal ñu cat bàyyi ñu ba ku ci nekk sa mbébét nga yeggale ko ñu rafetal rek gën a indi éducation de base dafa baax gën a indi yar ku la mag nga xam ne moo la mag ñu defar comportement yi toogaay ndax àdduna amul solo te kenn xamul ko njëriñ sa borom kon nag baa ji merci. ay mbëri arbitre bi ngi leen di xool di xool ba xam yaram bi nii naam déet combat bi combat bu neex la buñ ne caati ngéwël ndaysaan Ousseyn Kaay ndaysaan Ousseyn ñaari combat yi xam naa ne bokk na ci combat yi yi gën a neex ci combat yi. maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar euh, ñi nga xamante ne ñoo koy kal ci wasaare lamb di la wax ne alliance Birame Thiatou Nguéweul te ngeen ñu mandi lamb xale yi dañoo nekk xale yoo xamante ni fu ñu tase ñoom ñaar dañuy jëflante ba mat tey nag bu leen abi bi wooyee di waxtaan ak ñoom ci li ci làmb defe naa ne bu abi teggee loxoom seen diggante Baye Djili nga gis combat bu neex Baye Djili. teg na pied droite ba mu yàgg mu changé indi pied gauche alliance biram teg na pied droite moom it arbitre bi sifflé na Ousseyn alliance biram moom ngeen jàkkaarloon caatu ngeewul moo la woon ginnaaw ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo corps à corps. baaji alliance dagg na leewaatoo bi wala boog caatu ngeewul dagg na leewaatoo waaye loo ci mën a dégg mooy caatu ngeewul bëggul xeex bi waaw caatu ngeewul xeex bi arrangé ko daa bëgg a ñëw rek waaye alliance biram du ko noonu caatu ngeewul na ñaari loxo ci ngemb. alliance bi yëm caatu ngéwél faw ñu xeex baa ji li combat bi mënul noonu gis nga mënu cee ñàkk alliance bi yëm rokkos na léegi waaye caatu ngéwél daa bëgg a ñëw rek jàpp bëre làmb jaa ngi noonu. ndeysaan ñoom ñaar du yomb caatu ngéwél alliance biram alliance biram moo ngemb lu weex li ngay seen lu verte li noonu caatu ngéwél moo tent bopp ñoom ñaar ndengeñante nañ hypercute ngi jolli ci suuf. alliance bi mbokk yi boo léegi ba fa bëgg a jàpp téere yaa ngay dagg. plaqué na ko plaqué na ko. Ah, bi ñëw. alliance bañ na. alliance bi rëm caatu ngéwél épreuve de force def fi mu toll nii dañuy jàpp benn loxo rocc dóor jàppaat alliance bi a ngi noonu. caatu ngéwél sëq na ci ginnaaw ngem. caatu ngéwél baa jiil booy dafa mel ni bërëbee ko gën a arrangé. ndax boo xoolee chaque jour day xool fu mu yor loxoom manœuvre. ñoo ngi jëfante caatu biram alliance ngewel combat bu neex la. ndeysaan caatu ngewel alliance biram ñoom ñaar ñu ngi jàppante ba léegi uppercut yooyu ngi jolli. ñuy jaajëfal waa Equivox. wax ne liggéey bi yombul. waaye kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax baa jili ndax euh, suñu takk na ko takk na da koy mboot wala lu mu koy def mboot. tegal na ko 16 génn na ca la na ñoom mënut a yomb alliance ngewel ki da ko bëgg a mbot ki bëgg ko tegal 16 da cay daanu waaw waaw ngewel daan na alliance bi rab ngewel jaat ngewel daan na ko alliance na ko jël waa lii ngewel jël bu foogeewul moom ndeysaan kaay Adama. lu tolloo 4 semaines bu xam caatu ngewel bi mu ñëwee sama open press dina xam ne caat nekkul bi combat bi desee 4 semaines laa bi leesee amusonu si laa gëj a contact ba tey barki Seydina Mouhamad non maanaam man damaa mën a bëre. man yàlla daa def man damaa mën a bëre te man man ndoxtu mbër moo sama deret man man dara manu maa may si àdduna lu dul làmb man bu dul làmb du maanaam maanaam man man dafa am lu ma war a defal sama yaay tabarki Seydina Mouhamadou yi man kontaanaguma la non dama kontaanagul da dama amagul xaalis si làmb man sama yaay man maay taaw man la yaakaar waa xam nga tey jii nii ñun ay ay xale lan yoo xamante ni maanaam euh, lu nu appliqué rek tey jii daa am neneen nu ma doon ñëwee sax mais dan maa araftu mais dama ko doon dóor ba mu wàccil boppam. non juumloo ma de juumloo ma de Alliance Birame dama koo fooy dama koo kal <laughs> maanaam xam nga caatu ngewel xam nga tey jii jëmm ji dina ray ñu bari mais xam nga kan laa bëgg ñu jox ma ko. quatre avance dafa xew ay ñetti avance Tafatine moom dañu woon Malick ñaa la soxla Tafatine na ñëw ñu bëre. tapetu booy bi mu doon moo gën a ragal si làmb waaw mooy lamb man instant yi bis ni ki man damaa pare si booy nan ma jox mag ñi ma ñoom. Matar. dangay laaj sa morom xam nga dafa eh, laa bëgg bëreel. armée waaw am na combat mais ñaari avance daa xew. waaw jaajëf comprendre barki Serigne Saliou sa ginnaaw kontaan naa suñu frère nga sa boy soq dégg nga lam ko wax soq ñëw na bokkal Tyson 2 ci xare bi nee na ko man sa boy la sa frère la chaque maa ngi ànd ak yow kaay xoolaat Valdo lan la koy wax ndeysaan ndeysaan xoolal baay ma njoon ndeysaan rakk jeey bëri talatul lekk talatul naan ma ngi koy wax di ko yuuxu nan ko wàccal ndeysaan deret moo foor ndeysaan baay ma njoon génn na amul sant bu baax tey nga waroon laale sa diggante ak Mama Lamine nga dem ba mu dernier réglage yi ñu yëg ne Mama Lamine gaañu na bi nga ko yëgee ban yëg-yëg nga ci am waaw sant yàlla parce que ñun ay doomu aadama la dogal bu ñëwee dañ koy nangu kon dañoo yore staff li nga xam ne moom ñoo la ci war ñoom ñoo koy décider man li ma waroon def mooy def naa ko waaj na ànd samay mbokk def ni moo war a def di ñaan yàlla rek lépp luñ ci waajoon di nuyu sama sama sama supporter di leen ma saw ak samay mbokk parce que lamb ji dañ cee daj ay coono yu métti di wax ni maa leen di masaw ñoom ñëpp di wax ñu ngi waaj pare woon nañ pour ñëw bërës yàlla nag am na lu muy dogal di ñaanal Mama Lamine bu fekkee am ay gaañ suñu borom wéral ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi ñoo xam ne ci lamb nee nañ Mama Lamine it ci lamb ji moo tax ma ci dugg loolu sama domaine comme da am naa staff staff bi dañ ko gérer parce que lamb joo xam te ne su tey la waroon laa ko yëg démb nga ko ma ne lamb toll fii. waaw préparé ba heure bii. lamb ji yàqu kooku nga jë ba njëkkee nga si am. non ku ne xam na ne loolu dafa metti waaye nag suñu borom tamit li mu dogal kenn mënu ci dara. dëgg la di ñaanal maama la fekkee dafa am blessure suñu borom wéral ko di wax ni suñu di samay fan yëpp ak samay mbokk parce que ñëpp waajoon nañ pour ñëw bëre ku xool ëppal bëre si ñu fa yaa parcelle 1 ba 26 ñëpp génn am na ci loo xam te nag du sama ma xam ne loolu moo war a am. mais macha allah gis na yaa yi nga xam ne da ngeen a jiite. da ngeen di suñuy doom. di suñuy jarbaat. bu ngeen dérapé woon ñu ne leen dérapé ngeen. mais dérapé wu leen. parce que yéen a ngi liggéey liggéey bu rafet. yéen xoolal ku leen xañ lamb lambam du neex. loolu man Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi maa ko wax en le micro de la yal na leen yàlla defal jàmm léegi buur kaddu gaa ngi nii dama la koy jox nga waxtaan ak say xarit say doomi day say wala buur buur géwél buur balaa moo wax papa Ibou Ndiaye ñoo man maay wax parce que olof daf ni kël li la dañoo ëppante ca lawbe ga te ku wal mbaru tudub dëkk ñii ñu bëgg mu joon mu jël ginnaaw ñii ñu bëgg a ca ginnaaw ñii ñoo war a jiitu ca kanam ndax lu xew ci àdduna bi wala lu xew ci réew mi ñoom ñoo koy dugg ñu am jom ñu am ngor ñu am fulla ñu am faayda ñu bëgg seen leen jëf ndeysaan combat spécial baa ngi noonu dox ci diggante Fourrière Grand Yoff ak Baye Mandione ndaysaan Thiaroye sur Mer Baye Mandione cokkaas na Baye Mandione Fourrière Baye Mandione moo la woon ginnaaw rakk Baye Mandione la jël boppam tuddee ko magam Fourrière gone Grand Yoff la bu jàppee du bàyyi ndaysaan na ngay na xeex ñoom ñaar ma Mandione door na daw na jàpp ko Fourrière bañ na Baye Mandione ngay door et eh, ipet ki ci suuf Baye Mandione Fourrière bàyyi ma ñëw Fourrière ñu ngay xeex galaas ya dagg na door kaawa am na Fourrière jege na suuf bàyyi ma ñëw tooñ na ko lu mu nar daan ma ñëw daan na Fourrière kaay ma ñëw daan na Adama kaay ndeysaan bàyyi ma ma ñëw jooy xale bi tooñ lay wër non non non ñu laa bëgg ñoom non non non suñu yaram doom bàyyi ma njool yow dese yi doomu dara yow dese yi doomu dara waaw pour jël ko liggéey damay ci damay liggéey caaxaanuma doole def ci affaire bu ma suba fii ma suba dama sonn barke alxuraanu karim maa sant Baye Karim bu baax sant waa Thiaroye sama papa dafa génn àdduna sama yaay jàppale loolu ma dem voilà. kii sama papa la. maa ngi koy papa maa ngi koy yaay. li may defal seetlu ma ko fay. nga ma ko yàlla fay. kaay Adama. kaay ci bàyyi ma njool. gis nga la tool dépensé lan la. ñoo bokk ndeyu baay maam moom. ba dafa ma jël kër kii. Moustique. waaw sa waay na nga na xam delloo ziar baax. maa am jàmm baax. tey da ngaa waroon laale ci bis bi. da ngaa waroon laale daa blessé ah, man daal combat daal am desee ma wax dafa blessé. weer weer. weer nee daa blessé. gars yi dañ ma wutal adversaire ba sonn nag mbëri ah ay nañoo tapet mbëri ma tapet. looy wax nii gis mbëri moo dëkk dama laa laaj rek. ñemewuñ ma. lu tax loolu. dañ maa ñemewul xam nañ fi fi ñëwee lu métti laa di def maa leen dàq bëri maa leen ëpp doole. waa Thialé laay àndal mafia bi dañuy ñëw Pikine dañuy ñëw Guédiawaye dañuy ñëw. yow bi nga bëree booy siin ba léegi bëree waatu ma ndax boobu corona bi la woon quoi moo ñëwoon mais jox nañ ma noiro journée tey bi laa waroon bëree tey heure bi noiro daaloon naa ko yàgg ba mu ñibbi. mbër lañ doon lañ la doon doxalaat mbër yooyu. man na 250 250 mbër. mbër 250 mbër. ma ci ñett rek. non du ma lim. insi xam nga laa xam nga laa soxla sax. waaw nag Moustique xoolal bul ma tooñ. limal ma ñett rek. xool Ndiaye Tine. lenn Ndiaye Tine dem nañ ci ko sama avance. rakk takk ci rëb. bu la jàppee ba bàyyi la ngeen takk ci rëb. xalaatuma ko sax taxawaatil laa soxla si génn si booy ñaar kon comme dañ ma sama mënoon maa ragal. taxawaatil moom loolu. est-ce que du yabeel sax du doomu dangu doomu dangu. doomu dangu am na combat. am na combat. Jordan. ah mais doomu Taïs am na combat am na combat. combat moog Jordan. kon moo di Anta. du Thiès waaw. wala Malick Niang moom xam nga Ama Daan bëriwul loolu ñëw bëri ak moom. Malick Niang Malick Niang men. non non mais waxal say morom. mais man sama morom dañ maa ñemewul. barke yonent soo neexee nga laajte demal man man may naa la sama bopp yow naa la combat bi booy moo bëre bu ma ñeme nga tëgg combat ma bëre ak moom. Ah, dégg ngeen de. yow jox naa la ko dégg nga combat bi su taxee si yow la taxee su yàqoo si yow la na la woo. mbër bu mag nag mbër bu baax mbor bu baax mu bu ndaw ak bu ndaw bu ñëpp ñëw ku ñëw bëre moom yaaw jaas yow bëre moom nag bu ràmb nga nag yaa lay daw mais dawoo benn nag ba daw ma benn nag ren di jéeg rek laay def barki yonente bi di gërëm ñaar ñaari gars yi ma ànda nag Mayang ak Maguette Ndiaye maa ngi bëgg baax waa di gërëm waa Thiaré yëpp nag ñeneen jàpp leen dina ñëw incha allah léppay baax waaw ndeysaan arbitre bi ngi leen woo ñoom ñaari mbër yi am na butéel bu Franc yor ci loxo bi da koo sotteekoo wala da koy sànni wala lu muy def butéel bi benn butéel bu ndaw bu def saafara bu ñuul arbitre bi ngi xool Tyson 2 ba xam yaram bi niinul xool na ci kanam gi ma ngay xool ci ginnaaw. waaye mbokk yi baa daa mel ni Franc dafa niin. ndeysaan. ndax maa ngi seen kooku di coach ba mooy noonu di andi serviette bi. benn t-shirt bu blanc la ñu indi di ko ci fompal franc ndaysaan kële fa mu taxaw baaxul ndaysaan xaar leen xaar leen ndeysaan gis nga làmb gi bi mu ñëwee lu mu def dafa ne ko ñëw jëlal butéel bi nga sotti ko fii Franc daw yëpp ak fa mu sotti gàllaaj bi nga sotti ko daa mel ni bàyyi ji li Franc Tyson 2 li Franc def moom la bëggoon toj tojal ñoo ngay xool ku nekk fa mu taxawee ñoom ñaar ku ci nekk dañoo bokk tegtal ñoom ñaar tegtal yi booy na trop ci digg géew bi ndeysaan waaye yàgg yàgg ci bëre mujj waa Franc yi ngi yëkkati blanc bi waa Tyson 2 ngi yëkkati blanc bi gàll ci ndab li di ñibbi këram ci kanam tuuti ñu xool. waaye nag baa ji li waaw. kaaw mën na cee am de. door mu daan. laay kaaw de laa la mën na cee am. loolu de du ma bet. ni ko Pape Ibo Ngaye di waxee. kat api jël la. waaw nga daanu yaa koy yëg laay yàgg. Père Ibo moom loolu xamu ku ko ko may. waaye li tax mu wax ko. waxi mag dëgg la. moom mooy wax ak ñoom. ndaysaan mu ngi wax ñaari mbër heure bi muy wax ak ñaari mbëri mu ngi nekk il est vingt heures neuf minutes Émile François Gomis ak Tyson 2 mbokk yi Franc moo la woon ginnaaw Tyson 2 moom ngeen jàkkaar lool ndaysaan arbitre bi laaj na Franc laaj na Tyson 2 taxaw leen da ngeen a yàqamti rek waaye coup de sifflet moo leen boole moo leen taxal arbitre bi sifflet na mbokk yi samedi 19 juin 2021 arène nationale ndaysaan Vox Arena moo ñu fi woo Franc ak Tyson 2 a féete leen di joor Tyson 2 a leen càmmoñ Tyson cokkaas na cokkaas na. Franc Tyson 2 dafa bëgg a xeex. Franc koy Franc fay na. laay Tyson da ko ñaar dinañ xeex. waaye ci bëre lay mujj nee naa kaawu mën na cee am combat bi ma gis kaawu mën na cee am. ñoo ngi bëgg a jàpp mu lay door door na mu daanu door na ko daanu Franc door na ko daanu. Franc door na kaawu daanu. Franc door na Tyson ko mu daan. door ko mu kaawoo. door na ko mu daan. Tyson 2 eh, ko mu daan. Tyson 2 il bu lekk mu suur. illa wala muy wax jëfandikoo xolal ma seen xeexu njaago du jeex. xolal moo ma seen. ndege bi. Eh, Franc door na ko mu daan. kenn du moom. Eh, bàyyi naa sëriñ si. ndeysaan. la xale yaa nga xoolal tribune ba. mu wàcc. Adama xoolal ma Franc nee na ma mu wàcc. Franc nee dama am doole. Franc door na Tyson fi fi fi ko kenn xaaree xeex ba mu xeex ak moom ji dama jël ko. ayca Adama. Franc lan Franc daan na Tyson 2. ñun ni ñu préparé combat bi. xam nañ ni Tyson 2 gëdd Tyson. gëdd Franc pour xeex moom la mën. xeexkat da ngay xeex ak moom. bërekat nga bëreeg moom. Tyson 2 ah, Franc dañ ko préparé ci xeex bu doy sëkk. ba pare nëbbaloo ko ko. parce que ñu bëri dañ foog ni simple bi mooy nax ñu bëri ci Franc. mais ñi ngi ñi ngi progressé ñi ngi liggéey. yàlla dimbali nañu combat bi ñu am ndam. mais yeneen combat yi di ñëw dinañ gën a ci côté yëpp vraiment félicitations à Franc. Franc fan la jëm. waaw Franc yoonu lambam lamb lamb yoon la rek te mi ngi ci yoon bi. waaw combat bi moom wax dëgg yàlla xëy xeex bi xeex bi moo moo déterminé. kay jaajëf mbokk yi seetaan wasaare lamb gis ngeen tey arène nationale li fi xewoon ci diggante Emile François Gomis ak Tyson Franc wanati na boppam ci wàllu bëre dóor parce que ñu bari dañu yaakaaroon saa yu dugg see ci lutte traditionnelle bi ñu ne dafa am façon bëre bu muy bëre mais Franc indi na tey lu bett ñu bari ci làmb muy xeex dóor na Tyson 2 bëre ci koom daan ko jël bu amul benn wérante Tyson 2 làmb noonu la tey dafa nekkuloon sa période boo dugg see ci làmb ji yëpp ni nga ko bàyyeeg Franc da ngay xam ni tey bis bi bisu Franc la waaye nag làmb noonu la du biir day xëy rek wasin àndaatal ak say mbokk. àndaatal ak say njegenaale àndaatal ak ñëpp Tyson 2 nga dellu si waat ci làmb làmb dalaa soxla làmb dañ laa yittewoo làmb xam nañ ne lépp lu ci mbër di am mën nga ko am daay bi baax na daye bi baax na lépp baax na Franc ñu ngi koy félicité xale la boo xamante ne mu ngi wane làmb boppam mu ngi wane ay performance ci làmb mu ngi gën a wane waat boppam kon dañ koy félicité rek di ko félicité waat encore une fois di félicité képp koo xamante ne supporter Franc nga di leen mbokk yi bàyyi jiili aadama wasaare làmb wasaaroo kaa leen dem ayca